يسرع الأذان قد فجاء بجاي عبد لمن لله قد لجا ربي بما يسرع الأذان قد فجاء بجاي عبد لمن لله قد لجا حمدي لرب الكريم من لا شريك له وساتي اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزب كل بكلا عدو إله الذي أمان مواهبه للجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جلاء ومن وكرمني تكريم خاد وكل لمن لحد بريا رحمن هب للجميع الخلق رحمة من يغني أني سري من قرآن خرا وتلمة المصطفى عن كل مفسدة والتلخمي خلها من جاده بدا يا مالك الملك يا من جل الخوادم ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل الخوادم ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما تما خدنا خال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 Eh, di jël ab siyaar akum nuyoo nag jiital ci Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi yàgg tànn ak wér eh, di siyaare sunu jëwriñ sëriñ Yaafi bu sal imam eh, tey jii nag muy bis bi nga xam ne vol spécial bi nga xam ne tey moo bàyyi ko Madrid bokk ci avion yi gën a mag ci avion yi tey jii moo ñëw mbooloo mu takk la fi indi ay kiimtaan nag yu yu mag feeñ ci ndax bi ñu jógee rek dañoo daal di ubbee alxuraan ak xasida ginnaaw nuyoo boobu nag ñu nuyu euh, sunu kilifa gu tedd googu Serigne Afia nga xam ne tey jii MK TV muy télévision bi nga xam ne mooy télévision euh, bu Jumaay Touba moo fi teew ànd ak télévision bi nga xam te mooy TV xidma TV Assane xidma moom tamit euh, ànd ci ñëw ñëw teew fii ñu ànd ak nag sunu kilifa goo xam ne damay wax ne yoon wi xam nañ ko muy kenn ci kilifa yi yoon wi muy Serigne maam Thierno Mbacke moom Serigne baas moom. maam Thierno Ibrahima borom Daaru Muxti euh, te it euh, muy koo xam ne day suñ jëwriñ ci wet yëpp di suñ jëwriñ ci Espagne ci di suñ jëwriñ itam ci liggéey bi nga xam moom la ñu ànd déggal Cheikh naa si Ahmadal Xadim ci xasaayid yi kon sëñ maam Thierno tey yoon wi day sa maam ju baax ja day wéetoon na lool ca dem ba waaye wéttali ko na nag ndax bi muy ñëw bi ñuy ñëw nii de tey jii ku xool euh, aéroport bi ni mu feesee ku xool mbégte li nga xam ne nit ñi am nañ ko ñu jàng fi ñetti nooru daaray nii jàng fi kaamil alxuraan eh, séddale fi ay xasida loolu day ku xool xam ne sa maam ja sunu borom fay na ko kon nag ñoo ngi ñoo ngi wàcc kàddu yi di jox sëñ maam Thierno mu mu mu mu mu ñëw nag ci eh, moom itam jàngat bi nga xam ne gis na ko ci ci yoon wi nag ak ni yoon wi demee. ak sa alhamdulilah bisimilah nawal yàlla jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gannaaw bu ñu nuyoo mboqu taalibe yëpp jël nuyoo bi di ko teg ci loxo xalifatul am Cheikh Mountakha Al di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naal pour liggéeyal ko maamam ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bi waral lépp suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp mat ak njabootam sëriñ bi yëpp di nuyu mbokk taalibe yëpp di nuyu sëriñ maam Thierno Mbacke mii ñu. nekkal di sutu kilifa waaw di ko sant di ko gërëm naan ko Mbacke bala yow moom sa maam bu bu saa yu toogee sa su dellu see woon si réew mi Mbacke doo defaraat sa jotaay ndax réew yaa ngi ñuy fekk yaa ngi ñu fay wan sëriñ bi dinu taxaw lool si liggéey bi dinu wan luy sëñ Touba ak maam Thierno màggal gi nag. moonu indi ñun ñëpp ñun moonu sëriñ bii sëñ maam Thierno Mbacke buñ ko tuddee rek daanaka ci waajtaay bu màggal li may wax waa diaspora yëpp mun nañu koo seedal ndax man Stockholm laa jóge waaw Stockholm laa jóge man mii moo ma yebal Stockholm ndax la ma fa nekkee ak la ma fa toogee soxna sama fa nekkal moo ma ko fasal si farata yàlla ak sunnas Muhammad waaw te loolu yëpp génnul liggéeyal sëriñ bi te waa daara ja maxdalu maxdal surub waa daara ja fa nekk yëpp ñu ngi euh, daara maam Seera Fall bi ñëpp xam nañu li may wax xanaa ñu wàccee foofu kàddu yi di tub di jégal di ñaan sëriñ bi defal ñu màggalu jàmm ak salaam ñu téye ko déwén yu bëri ak sa naa ba nu ziyaare dong yëpp wax gën a ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te wér euh, mbégte mi it fu nu ko takk weesu na ko waaye it kàddu yi mën naa gàtt ndax Sëñ Tuubaa daal woote na ak cant mu mel ne sax loolu rek la luy lum lott la ndax da cee woo ñëpp ngir ñu santale ko yàlla woote boobu mu woote nag moo tax ñu wuy si fas yéene ko ko santale ñu ñaan saa kàtt na ñu ban àgg ca bis ba ba nanu ko bëggee di jekk ko donte la ca yàlla moom duñ ko man mhm. waaye ku ci ne mhm. def ci sa yéene ndax demam googeeg na ko sëñ Moussa Ka waxe bu du woon demam gi wala fu nasaraanu mhm. te kon bi leexi ñëpp dem niiraanu euh, loola it moo ko yóbbu woon wax ne sababu xaybatiya an allaha araada an anaana minhu jaaha ah, waan akoon a chafan li xaw mi waaye waan akoon a xaadiman li daw mi dane sama nation moo tax a jug sénégalais yi ñoo ma tax a dem ski bi muy delseet gis leen la mu la mu wax ca fan yu mujj ya ical rujoohi ilaa xaw mi shahadatana wal tak fi naa yowmal jami xalqi niirana su ma delloo ci sama nation muy Sénégal nan am liberté nan am indépendance loolu rek moo ko taxoon a jóg loolu la doon xeex loolu moo yitte ji waaye daal yàlla fay na sëñ loolu it kenn ku ne na koo yëg sa bopp kon fu ab murit ne wala foo képp kuy diglu sunu kàdd li nu sëriñ bi digal lenn la nu xamal ko suñu bopp mooy wax na ne ne kenn ku ne na nga defaral sëriñ Tuubaa sa jëmm sa jëmm waaw defaral sëriñ Tuubaa sa jëmm foofu la liggéey bi toll kon mën naa bañ a gudd daal moom day sëñ bi sax dafa am ci feeñ mm. ndax biñ dugg biñu egsee ci aéroport bi ñoo ngi dajeeg sëñ eh, sëñ Abou Mbacke moom sëñ Moussa Bassirou ak sëñ Abdul Ahad ak sëñ Abdou euh, sëñ euh, sëñ Abdou moom Abdou Khadir moom sëriñ Fallou moom sëñ Amadou Mourtala ak sa sëñ Khadim moom sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Sis euh, maanaam moom sëñ bi jataay bi itam loolu ci loolu noo gisee liggéey bu mag bi ñu liggéey ci xasida yi ak sëñ bi fa mu nekkoon wéetaa nga jëm ndam nekkoon ci di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii wéetaa nga joojoo ak tey ji nga xool sëriñ bi yoon wi ni mu wéttali ko avion bi maanaam ñu dugg ci biir te ñoo ñi nga xam ne ñoo doon ànd doon jëflanteeg sëriñ bi tey jii maam tey jii ñu ubbi fépp tey fu ñu taxaw ñu ngi fay tudd yàlla di jàng alxuraan di jàng xasida xam naa kàddu yu mujj rek. waaw jërëjëf sëñ Assane euh, loolu it euh, ndimbalul yàlla la. mooy li suñu mëntaan ne wax ne boo nekkee ci tool bi saa borom dalay gàttandu ndax béréb yéen ko doon jànge mooy jafe naa ne kon ku yàlla defal tawféex yi nga dugg ba ci béréb yooyee. di fa tudd yàlla loolu tawféex la. yàlla koy jagleel ay nit yàlla koy dimbalee nit nit bëgg na ko te yàlla mayu ko ko mm-hmm. waaye ku nekk ak wàlla kon saa borom dimbale nañu ba nu àgg ca jataay yooyee ca furuqe yooyee ñu jàng fa alxuraan jàng fa xasida ndax loolu lépp ci sant gi lay dund lay dugg mm-hmm. euh, ndax sant gi moom loolu mooy jiitu bernde yi doon a ñëw euh, ni nga ko waxee it mbirum xasida suñu mu taxaa day day wax lu leer mm. dana wax ne lépp lu baax ñoom ñëpp ko bokk mm. waaye xasida yi moom ñoo ko moom loolu it mooy cër boo xam ne saa borom da ko del dencaloon sëñ Tuubaa ndax yàlla lim ñuy dugal muy julli muy woor mën na ne waaye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàlla def na ko de loolu nag mooy xasida loolu mooy lu yàlla dencoon ci ruq boo xam ne nit yàlla yëpp kenn gisu ko woon bi sëñ Tuubaa ñëwee nag la ko yàlla wan loolu moo tax ku baax ki saa yónne muy wax ne sëñ Tuubaa moom du yónnente bu du malaayka waaw fa suñ borom ñëw fa kenn looloo ko waral waaw ndax ku daal ma ngoog moom daal xam naa ne daal lépp nga war a wax. <laughs> Ah, jërëjëf jërëjëf sëñ Assane yow yàlla bañ la xamee ba léegi euh, ci soxna jaara liggéey soxna jaara rek muy dong ci leen lay séen ci jumaa ji leen lay séen mosuñu séen ci lenn luy sa yite sa yitey bopp moom saa yu ñu la ci liggéey bi sëñ Tuubaa leen lay séen loolu nag alhamdulilah rabil alamin ndax sëriñ bi moom ni ñu koy waxee yàllaa ko fay fi mu def gi nga koy def du jóge ci yow ci ñaneen lay doon di rogalaat ba agsi fii ndax ñun ñi ne kenn duñ tudd Cerno la woon loola nag mooy rogalaat mooy Sëriñ Tuubaa loola rek ka fi nekk sëñ jërë ngeen jëf waaw ah, jërëjëf suñu xel dal na bu baax ndax eh, yoon wi eh, noonu ñu ko doon waxee ku tudd eh, Cheikh na Ahmadul Xadim da nga tudd maam Cerno Ibrahima daamal Daaru mm. tey jii nag sëtu maam Cerno tey jii moo toog nii ñu tudde ko maam Cerno Ibrahima muy sëñ maam Thierno moom sëñ Abbas euh, kon xam naa ne ñu wàcc foofu kaddu yi waaye nag ñu yëkkati kàddu yi cant nag yu bàyyi ko ci jëwriñ al imam sëñ Afia Bousso mu jëm ci mboolem waa diaspora diaspora nag bu ñu ko waxee mooy maanaam ñi ne ci bitim réew euh, diggante Amérique ak Europe ak Asie ak Afrique ak fépp fooy ne ci bitim réew daayira Moukhaddamatoul Khidma moom jooyal na cant ak ngërëm ak ñaan ci ñoom ndax seen taxawaay ba looloo tax mu joxe yitte ju indi ko fii ci buntu aéroport bi mu teeru ñi nga xam ne ñoo fi nekk li doon xew ci yoon wi lépp ñu jël ko ngir ne ñii ay ay ay taaliba ay murit lan yoo xam ne ñu jox seen Tuubaa seen yitte la li ñuy wax naan bëgg ak gëm ak wóolu ak ak ak nangu koo liggéeyal loolu moom moom seede nañ ko ci ñoom. kon nag ñoo ngi jaajëfal nag continent yëpp diggante Amérique ak Europe ak Asie Afrique ñu benn réew. rawatin ak fédération Espagne bi nga xam fa lañ jógee sëñ Mbàkke Njaay di jëwriñ ja nekk ci bopp bi sëñ Mbàkke Njaay xasida nekk ci bopp ahlu xasida bu dee Amérique waa fondation Muxaddamaat Xidma sëñ Amsatu Laam ak ña fa nekk ñëpp Angleterre bàyyiwuñu fenn ndax bu ñu limee du ñu matal waaye képp koo xam ne daal eh, da ngay ab taalibe di jullit yow yaa ngi ci biir cant loolu ak biir ngërëm loolu jaajëfal nañ leen nag ci soññe bi ak ci taxawaay bi ndax daayira Muxadamaat Xidma kenn ku ne xam ne ne waa diaspora su koor ñëwee dañuy buñ tàllalee loxo kenn du leen ci jiitu ci ay jëf kenn du leen ci jiitu ci ay soññee màggal gi bi mu egsee ñu xam ne entretien la ñuy njëkk général mu xam ñu ngi koy tàmbale ci barabu ku tedd gi Seex naa si Ahmadul Xadim nga xam ne foofu lañ njëkk a liggéey bi ci setal gi ak ci taaral gi ak ci biir jumaa ji biir ak bitti ak kaw geeg fépp foofu daayira mu xadamaati xidma kenn ku ne xam ne bu tàllal la loxo waa diaspora kenn du leen fa jiitu jas euh, euh, mu xadamaati xidma tam gis ngeen mbooloo mu mbooloo mu takku mi muy taxawu ci màggal gi ndax lu toll ci juróom-ñaari téeméeri euh, doomu aadama ba jàpp jëm junni ñooñu ñooy taxaw ci biir jumaa ji di saytu lépp lu fa nekk te danañ sens lépp te ñoo ñëw leen di añal di leen reeral loolu nag bu ñu waxee waa diaspora ak waa biir ak waa bitim réew ñoo ñëpp seen jafe ngi ci biir kon daal euh, ci ci ci ci ci niñ ko mën a waxee daal mooy tey daal xol yi fees na dal sëriñ bi waaw ñëpp bég nañ ñi kon nag ñoo ngi ñaan ci barke borom bis bi euh, nga xam moo moo moom sëñ maam Thierno leeral na ko léegi lu mu ci digle lu mu ci santaane ci bis bi ñu santale ko borom ñu ngi ñaan ci barkeb sunu sëñ Touba mu faj aju yëpp. Cheikh Modou Mountakha nag mu yàgg fi lool tànn ku wér di ñaanal tam képp ku di taalibe rek rawatina ku ne biir réew bitim réew yàlla boole faj si ci barke waq de waaye jëli si na daamoo fi xidmati waab lahum maaraamoo ina li si na saaraxoon li xidmati fa lahum diyaara wasal jannati seen bokkum taalibe asan Diop xidma ni ko sëñ maam Thierno waxe Assane maam Diarra kon ñu euh, dalal yàlla